wasalaatu wasalaamu ala rasuli rahma sayidina wa maulana muhammad qaidul umma wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin wa islaamin ila yowm alqiyaama wa radiallahu an cheikhina wa xudwatina muhammad bin mahmad bin abiballah rabbi ashrah li rabbi yasir rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul iqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimu al-hakiim waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshidaa waj'al fu'aadii xazinata uluum an-naafi'ati innaka al-mu'ti al-aliim wam usaqawatan naatni yaa aliim waj'al fu'aadii madinata uluum asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mbokki taalibe yi mbokki jullit yi ñu ngi am mbégte toogaat tey ci makan mu tedd mii ci weer wu tedd wii di continuer li nga xame ne nii moom la mu muxaddamatul xidma baaxoo def bu weer wu teroo muy dundal weer wi ci xam-xam ak ci yeneen xeeti dundal tey jii nag niñ ko baaxoo defee ñu ñëwoon tey bëgg a waxtaane loo xam ne lii lu am solo la du loo xam ne lii itam baaxoo wuñ ko waxtaanoo niñ koy waxtaane muy xam ngeen ne sun sang bu tedd bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal liggéey Sëriñ Tuubaa bu tedd bii bi mu koy tàmbali wax na ci wax yu baree bari wax yu bari yu ñu war a jàpp yu ñu war a saraa yu ñu war a dégg yu ñu war a topp waaye nag li nga xam ni tey muxaddamatul xidma ci seenu njàmbaare ak seen xam xamle lépp loo xam ne li bëgg-bëggu sëñ bi la ak lépp loo xam ne war naa nekk njariñul taalibe yi ñu tànnoon lenn ca waxam joojee nga xame ni ji waxoon na ko muy alkalimatullahi hiya al ulya baatam boobu mu waxoon ne bu laal suuf ñu taxaw amuk taxaw seetlu ci bu mu laal suuf googee lañ bëgg taxaw tey seetlu ko lan mooy bu mu laal suuf joojee lu mu ci jublu woon léegi nag loola su fekkente ne jóg nañ ci jot koo waxtaanee tànn koo xam ni kii ñëpp xam nañ ko du ko ñuy présenté fii muy docteur Khadim Sylla ngeen xam ko yéen ñëpp fii ci réew mi ak ci bitim réew yàlla dogal tam mu am bokk ci dayre bi itam nangul daayira bi itam mësuñu koo jox benn thème boo bi joxe na ca ngànt lu daayira bi nekk mu ànd kook ñoom thème buñ ko jox mu traité ko traité boo xam ne bii ñëpp danañ ca seen xol dana ci sedd ñu jox ko thème bii tey mu def ci ay majhudaat ay effort yoo xam ne yii yaakaar naa bu ñu jógee ci waxtaan wi ñëpp danañ ci bég loola tey moom moom lañ ñëw bëgg a jox sëriñ xaadim mu seetal ñu naka la jàngate baatu sëñ boobu moo xam ne bu mu laal suuf bu mu laal suuf naka lay bañ a laale suuf liggéey ba sëñ bi tàmbali nañ ko ba ñuy teg xeer wa ba léegi ñu ngi te ñu ngi tàmbali njàng mi waaye bu mu laal suuf jooja luy continuer la suñ xaadim kon bu mu laal suuf joojee naka lay demee ñoo ngi lay déglu. jërëjëf bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraat alladina an'amta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala daalliin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen bokki jullit yi teew ci barab bi yépp bokki taalibe yi noo ngi yeesal sunum nuyoo ci yéen di ko teg ci loxo al imaam sëriñ Afiya ak ñi mu àndal liggéey bi yëpp ci muxaddamatul xidma mu wàcc ba ci boolem ñi nga xam ne ñooy ruwaadu xaasal jaamia al kabir di leen ndokkeel ci weer wu tedd wii di weeru Ramadan di weeru Cheikh al comme ni ko sëriñ Cheikhouna waxee bokk yi di ñoo tànn tem boo xam ne ñu ngi ko tuddee taxawub seetlu waqfa taamuliya fi ibaratil xalifa xawlal jàmma bu mu laal suuf wax waqfu taamuliya muy taxawub seetlu ci baat boobu comme ni ko suñ seexu waxe mooy nan lañuy def ba du laal suuf waaye lu jiitu loolu bokk yi waxam ne nañu laltaaye waxtaan wi lu jiitu ñuy agsi foofu ci li nga xam ne mooy xam-xam li waral sëriñ bi di wax loolu te mooy li waral simb woowu ak naal wu woowu di xam-xam ban wàccuwaay la am fàttali lay doon ci lislaam ak ci yoonu seexal xaddim bii muy projet bu seexal xaddim bii nga xam ne mooy at-tajdiid xam nañ ne société benn bu ci nekk ca la ma ko taxawal am na ca loo xam ne moo koy identifié moo koy màndargaal ñi di ko ko xàmmee di ko ko ràññee ngir taxawaay bu ca am moom loole muy loo xam ne ak dundam ak ku yokkoom ak ku màggam ca loola lay aju bu loola dundee mu dund bu màggee mu màgg bu yokkoo mu yokku waaye bu safaan ba amee it muy safaan ba diine islaam bii nag nga xam ne mooy diine ji motti li mboolem risalaat assamaawiya yépp te risalaat assamaawiya mooy mission yi nga xam ne yonent yi su yonent sunu borom da koo joxoon ngir ñu ñëw andi ko ci kaw suuf pour defar ci ñi nga xam ne ñooy waa àdduna muy defar ci seenu xeet xettili leen ci tey waaye faggul leen ci itam wala sóob leen ci lu leen di defal ak xettili ku ëllëg mission yooyu yëpp nag bi nga xam ne moo ñëw complété yëpp nag ñi jiitu woon tàmbale ci sunu maam Aadama mi njëkk a yónni ba ci moom lañ andi woon lépp risaala bi nga xam ne da koo ëmb waaye ëmbaale nag li nga xam ne bi risaala bi agsee ba ba àddina tukki lépp loo xam ne lu doomu aadama soxlawoo ci luy defar tayam ak ëllëm ëllëgam dana ca nekk kooku mooy risaalatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam risaala boobu nag ay fondement muy kenu yi nga xam ne ñoo ko laltaay taawu ko la ca jiitu mooy xam-xam risaalaat yépp moo tax sunu borom bi mu tànnee doomu aadama sax muy sunu maam aadama ci boppam mu nekk xalifaam ci kaw suuf mu wuutu ko ci kaw suuf ak ci mboolem di nekk ci kaw suuf ak ñi nekk ci kaw suuf trésor bu mu ko jox mu indaale ko nag mu yóbbalam bi ëpp ci kii mooy xam-xam wa allama aadama al asmaa kullaha muy loo xam ne mooy laltaay lépp loolu moo tax sunu borom subhaanahu dogal même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne itam moo ñëw motti li mboolem risaalaat yooyu yëpp moom it bi ko sunu borom su subhanahu yabalee lu mu ko njëkk a jox trésor ban la ko njëkk a jox muy loolu muy xam-xam te mooy iqra la ko njëkk a wax muy jàngal loolu nag moo tax xam-xam nekk loo xam ne dafa am wàccuwaay bu am solo ci lislaam waaye am ko itam ci biir li nga xam ne mooy yoonu murit ndax comme yoonu murit niñ ko yàgga waxe ci jataay bu mel ni bii borom xam-xam yi yàgg koo wax ci ay jataay yeneen yu dul yi ñu baaxoo def fii ak yi ñu baaxoo def fii moo di sëriñ bi dara yëkkatiwu ko woon lu dul yeesalaat li nga xam ne mooy ndono li nu fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon te mooy risaala boobu tey dinun si waa islaami ilaa yuhamadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu bil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnata ulgara wa inni ahmadu yeesal gi nag comme ni mu ko baaxee wax du dolli ci dara waaye du wàññi ci dara waaye mooy seet li nga xam ne da cee bokkan te jamono ak doxinu jamono dem ba génne ko ci mu delloosi ko liñ ci dolli te bokku ci mu génne ko ci loolu rek mooy tajjit bi bi mu ko defee nag li nga xam ne moom la jiital comme ni ko lislaam jiitale moo di xam-xam ci boppam xam-xam mu wax ne moom mooy trésor bi nga xam ne mooy sàq mi nga xam ne am sàq mi nga xam ne lépp luy defar suñ àdduna di ko yéenal mi ngi ci biir waaye lépp luy faggul luy defar suñ ëllëg itam ma nga ca biir loolu moo tax nag mu ñaanan boroomam daara ju mag jooju danañ ca ñëw ci wàllu loolu ñu wax ne dafa wax ne mooy sàq mi nga xam ne yaar yooyu yëpp ca la nekk ca la waxee al ilmu walla amalu jawharaani li xëyre yi daarayn yajlubaan mu yox ju leer nañ joo xam ne soxlawul sax commentaire nee na xam-xam bu ànd ak jëf boobaa nag al amal dafay yor ñaari sens double sens muy jëf ji nga xam ne mooy yéwénal mbirum àdduna te kooku mooy liggéey ak jëf ji nga xam ne mooy yéwénal mbirum alaaxira te loolu mooy jaamu yàlla ñaar yooyu yëpp nag xam-xam accompagné bu ñu àndee ak moom mooy njël loo xam ne tey suñ añ ak sunu reer ak sunu ndékki lépp muy liy defar sunu àdduna ak luy defar sunu àllaaxira lépp maanaa ma nga ca biir mu del waxaat ne waalam axi bi anna ilman wa amal huma wasilata saadatin ajal loolu nag moo tax moom mu wax ne kon mooy ngànnaayam di jumtukaayam bi nga xam ne moom lay jëfandikoo pour jàkkaarloo ak ay noonam yi ko war a gàllankoor ak yi ko nar a gàllankoor ci mission boobu waaye mooy jumtukaay yi nga xam ne it ci toolu rasulullah it bii mu dal fas yéene koo bay bam set wécc lu ci bokkutoon lu nekk mu génne ko ci lu ci nekk te lu ne mu delloosi ko jumtukaay bi mu jiital ci loolu mooy xam-xam ndax nee na xam-xam kat mooy critère bi jiitu ci bi nga xam ne ci la nit ki jiitoo moroom nitam ñun ñëpp ci ñaar lañ bàyyi ko muy aadama mooy sunu way jur wu góor awa mooy sunu way jur wu jigéen waaye bu ñu demee nag ba teqali ko am ñu jiitu am ñu topp ca gannaaw am ñu gën am ñu gën Cheikh Al Khadim amul benn critère wala luy maye loolal lay maye loola nee na la ca jiitu mooy xam-xam bu ànd ak ragal yàlla waaye du ci ab juddu du ci aw askan du ci du ci la du ci am am du ci laneen waalam bi annama tafawutul wara bil ilmi wa diini yakunu fasbira wa bi ima yaqbulu man qad adula laa bintisaabi ii li man qad yatala min jiati l ansaabi ummin wa abin kon nag fa fiihi majtahid ma a taaddubi du caagee nit diw sàngam mooy sama baay wala ci askan sàngam laa bokk sëriñ tubaa nee na tëkkuwul ci loolu lii may gën ak jiitu chaque maas fa kanam sunu borom subhanahu wa taala nee na moo di xam-xam bu ànd ak jëfe xam-xam loolu nag moo tax mu wax ne mu soññee nag ñëpp nag ku ànd ak moom kenn ku nekk xam ne liggéeyam bii kon xam-xam mooy laltaay bi ko yor mu jël engagement ci wax ne ya bussu uluma diin nazmi mujaddidan li nahji nabi bil xatti israfu wa afa kon wax na ne moom e yeesal gi muy yeesal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu dee ab tool la sunna si ab tool la gopp bi ak ëllëer bi kon mooy xam-xam dellu waxaat ne na wal qalbu min nii bassa ilmin yaqudu wa taallumi wa taalimi lillahi si dax mu ne am na sama intention ak sama yéene la ci jiitu mooy wasaare xam-xam ballulu xam-xam ci sama dënn wasaare ko ba mu àgg ci képp koo xam ne jàng ak jàng daf laa itteel ba ki bëgg a jàngale du wax ne kat aw ma ay référence wala ay maraajeex yoo ma sukkandiku ba mën a jàngale ku bëgg a jàngale danaa la taalifal téere yoo xam ne loo bëgg a jàngale da nga ko ca fekk ci li defar saw askan ak sa pénc ak sa diine waaye képp ku bëgg jàng itam doo wax ne fu may amee téere danaa la taalifal téere yoo xam ne lu ngeen bëgg a xam ci seen wàllu diine ak luy defar seen pénc da ngeen ko ca fekk daane loolu engagement la bu ma jël àlla yet lati yuhtada biha shashaa rabbi xayra man faasa bil waxyi danaa andi taalif yoo xam ne ay lumière lay bon boo xam ne yoonu yonent bi sallallahu nga xam ne demal na ba lëndëm ba ku ca bëgg jaar doo xam fu mu nekk doo xam fooy teg sa tànk ndax yañ ca bol dolli ci yu ca bokkut xam-xam lay jël pour dégager loolu lépp waaye mu nekk lumière buy leeral nit ñi fan la ñuy teg seen tànk ci ci yoon woowu mu ne kon nag sama ji at man du ji aatu ngànnaay yi ñu miinan muy ay fital ak i kanu ak i xeej ci ak i gobar ak i jaas yi déedéet xam-xam la inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman wal muhayminu shaahid sama xam-xam ñaar yëf la sama jihaat ñaar yëf la muy xam-xam jàngal nit ñi bañ xam lañ war a xam waaye wëlbati ko yar leen ci taqwallahi ci jox yàlla cër bañ ko war a jox féete ko fañ war ko war a féete nee na loolu ñaar yooyu mooy sama jihaat jàngal nit ñi ba ñu xam liñ war a xam wëlbati ko yar leen bañ mel niñ war a mel inni ujaa'ilu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman wal mu'minu shaahid ci biir loolu nag ci la yëkk kàddoom jëmee ci képp ku ànd ak moom tey ndaw lu toll ci jàng nga bañ a am benn préoccupation sa bàyyi itam bañ a am fenn fum mu lay dugal wala fu lay lay jaare lu dul teel a def ci yow xam-xam bi mënta ñàkk ci yow xam-xam bi aju ci liy defar sa diine ak même bi aju ci liy defar sa pénc muy sa àdduna mu jàkkaarloo ak nun ndaw ñi ndaw ñi ne la yaa mahshara shubbaani in xiftum xajal fa qaddimu taalluman ala amal yéen ndaw ñi bu ngeen ragalee gàcceeg tey ak gàcceeg ëllëg ñaari gàcce yépp dama dema dem ba sa pénc da koy defar lam laaj ci xam-xam lépp nga war koo yore pour mën a defar sa bopp defar sa kër defar sa pénc amul xam booba dem ba sa diine lam soxlawoo ci xam-xam da kenn ci ñi sa diine war a compter pour defaru ci wàllu xam-xam nga dem ba àgg ca loola la nga ca war a joxe sa nawle yépp kenn ku nekk mën a joxe paaram mën a jox taxaw ci responsabilité mi yow nga lott ci def loola loola gàcce ko koo nu koo gën a rëy seexal xadim nag ne gàcce gën nag bu ngeen ko ragalee bu ngeen bañee mu dal leen fii wala féelee ca ëllëg nee na li ngeen di def na ngeen ci jiital xam-xam da ngeen jiital xam-xam ci lu mu mën a loon mu dellu waxaat yaay waa sibyaan laa tastaxilu ba tey anil huda waaye nag wa bil ulumi istaqilu yéen ndaw ñi bu leen yittewoo ci seenu ndaw lu dul fàgg lu leen di may ak njub ak defaru waaye nag la ngeen koy wute muy njub ak defar googu na xam ne xam-xam moo ci jiitu kon nag xam-xam ya aju ci yooyu yëpp na ngeen ko fàggu te it nee na doon xam-xam boo xam ne rek dangeen koy jàng rek ci téere yi maanaa mu yam ca waaye na leen xam-xam boo xam ne dangeen ngeen koy denc dëxañ ci seenu dënn fu ngeen jëm yóbbaale la nitu yàlla ka waxan borom xam-xam nga ilmi ma sama xam-xam fu ma jëm mi ngi ànd ak man Seexul Xatim digal ndaw ñi bu ñu def bu jàng jotee bu subaa ñu ñëw fii ci daarul maarif sëriñ As wala njaboot gi fi nekk di ko jàppale téere bi mu jàngal leen ñu dem wala ñu dem ca afiya wala faneen ci daara yi yam ca loola déedéet Seexul Xadim dox wax ne li ngeen di jang bu ngeen ko jëlee ba noppi itte yi mémorisé ko mooy mokkal ko ba fu ngeen te soxlaa dem te soxla ngeen di dem ca kaggu delluwaat ca kaggu wala delluwaat ca kéere ba wiñ seen dënd fastaxiloo bele li ngeen di jàng na ngeen ko mémoriser na ngeen ko mokkal wattu ko soxla bu ngeen ko soxlaa rek da ngeen di sàkk wat tilaawa waaye na ngay am curiosité bu tal ni bu leen yem ci la ngeen jàng ca biir daara ja rek waaye lecture lépp lu am njariñ ci beneen téere bu ngeen gis boo xam ne xam-xam ba ca nekk amal na leen njariñ da ngeen am curiosité bu toll ni na ngeen ba jàng ko ba xam ko waaw na ngeen da ngeen tàggat seen bopp ci ci laa ba jàng liir yaatu la wajtani boo nag wajtani boo majaalisa shaqaawa su ko defee ñaar yooyu mu wax nag ci way fastaxulu bil hifzi wa tilaawa am la ci loolu ci jàng alquran loolu lañ ko sant muy mu jàng li mu jàng na ko mokkal waaye na koy defar waaye ki la ci jàng xam-xam it loolu lañ ko sant moo tax précisé wu fastaxilo bil hizzi rek la te seet la ko jiitu woon yaa yooyu si benn laa tastaxiloo anil uda wa bil uloo bi staxiloo daal di wax fastaxiloo nag bil mu ëmb lépp nag lépp lu ngeen jàng da ngeen comme ko mémoriser mokkal ko waaye bu leen ca yam rek na ngeen na ngeen am curiosité waxtu wu nekk na ngeen itti wa di jàng ak a nafar li ngeen jàngal te ko jataay boo xam ne nag bu ngeen fa toogee du ngeen dolli ko ci wàllu xam-xam du ngeen dolli ko ci liy defar seen seenu nekk yi du ngeen fa jëlee dara lu leen amal njariñ ci seen àdduna du ngeen fa jëlee lu leen amal njariñ ci seen wàllu diine mu ne li ma leen digal nag laneen lu dul loolu lu nekk na ngeen ko wan gannaaw xam ne du seenub soppe waaye defaral defar leen ak ak seenub defaru itteelu ko muy keneen ku leen jàpp ne sama liggéey bii ak sama yoon wii ak sama mbir mii am na lu ci jiitu xam-xam wala am na lu ci gën xam-xam ci ndaw lu toll ci jàng ba mu di leen joxañ loola di leen walloo gannaaw xam-xam da xam ne kooko kat bu ngeen di seet ku réer ku sànku da ngeen bu ngeen ko yamee na ngeen xam ne kenn jiitu ko ci ñëréer ak ña sànk wa man nahakumu an ittaallumi fa nahyuhu ila dalali yantami képp ko leen di baaxalal lan xam tànnal leneen lu dul xam-xam wala mu jàpp ne laneen lu dul xam-xam moo ko gën ci yéen ndaw ñi toll ci jàng bu ngeen ca tolloo kooku ku mën a doon ku ne da leen di sànk is kullu man fi sa zamani manaa min attaallumi fa innahu daa li bidatin shaniatin idil amal in lam yakun bil ilmi shaba o xalal ah allahu akbar mu ne ndax jamono jii nu nekk xoolal ba mu koy wax jamono joojee mu nekk waaye mu ëmbaale nag kon rawatina jii nu nekk tey mu ne ndax jamono jii nu nekk kat koo xam ne day jaar diggante nit ñi ak sàkku xam-xam ak jàng ba xam li nga war a xam jële woo ci laneen lu dul loola na nga xam ne lam lay woo bidaa la bu ñaaw bu bon boo xam ne amut cosaan ci diine lu mu la woo lu mu mën a doon lu ne gannaawal xam-xam na xam ne loola bidaa la boo xam ne amul cosaan amul cosaan ci sama yoon bii usine amal ngir xam-xam kat wala bépp ndax bépp action bu mu mën a doon bu ne muy jëf moo xam daa moo xam liggéey la buy defar suñu penc seexil xadim nee na bu ko xam-xam laltaayut xam-xam jiitewuñu ko bu yegg it du jag bu yeggee it du jag isil aman in lam yakun bil ilmi shabahu xalal bépp action xam jaamu yàlla la moo xam liggéey la buy defar pinc mi seexil xadim nee na xam-xam laltaayut ay boromi xam-xam jiitu jiitewuñu ko du mën a baax du mën a jag faw faw dana sikki faw dana manki faw ay yàqu-yàqu dana ca tàbbi nag moo tax nag ceefal loo xam ne wax dëgg yàlla fa tabarakallahu bokk na ci moo ji karaamaati Seexal Xadiim muy Tuubaa raf seen jaan wax na ko fi biñ fi ñëwee nee na ci histoire l'islam gisu ci même ci histoire humanité dëkk boo xam ne dem na ba nekk deuxième ville ci réew moomu nekk te yoonu état la ko yóbbu foofa du état waaye ay citoyen ay ay ñoo xam ne dëgg dëgg dëgg ñu am taxawaay ba noppi am kilifa gu mat sëkk kilifa seen taxawaay ak seen yittee ko fa yóbbu te yàggul sax ndax ka ko sañ ci doomam mi ngi ci kaw suuf mën a jël loxoom teg ci dënnam ne sama man mii la sama waajur sañ ci dëkk bii doomoo suñ mortalaa mi ngi fi mu ne loolu xamu ko ci histoire dëkk bu dem ba nekk deuxième maanaam ville ca réew ma nga nekk ci condition yi mu ko nekk ne amul ci histoire humanité buñ demee madinatul fadil et philosophie ku nekk bind na ci ku nekk bind na ci décrire kon ni mu ni muy mel ñoom ñëpp ñu dëppoo ci ne mooy dëkk boo xam ne boo fa xasee dugg daal mënati nga faa bañ a ndax lépp lu aju ci loo soxlawoo rek ci wàllu gu mën a doon ci fànn bu ne bu dee ci wàllu diine bu dee ci wàllu adduna bu dee ci lu mën a doon dan dana fa am ñu bari bind nañ ci théoriser ko waaye kenn ku ko commencé réaliser amul Seexul Xadim rek bi yàlla wàccee aadama ci kaw suuf ba léegi moo jël xalimaam bind projet ci ab dëkk boo xam ne madinatul fadila nadariyan waaye wëlbatiku yi nekk matérialisé ko nag la mu waxal lépp nag mu boole bind ko ak wal wëlbatiku nag jëmmal ko mooy tajjid ko ba ko bindee nag la nga xam ne tey moom la ci jiitalan muy dëkk bii tey gis ngeen ko waj alu daa ba maskana taallum wa di al fikrati wa tafahum def ko muy dëkk boo xam ni ne képp kuy sàkku xam-xam rek naanukaay lay xam-xam lay doon boo xam ne ku xam-xam itteel rek boo fi egsee fekk fi lu la màndal danga fi fekk ñuy jàngale ak xam-xam yu ñuy jàngale ci fànn yépp waaye day nekk dëkk boo xam ne it na am ñoo xam ne dañuy jëfandikoo xel mi leen yàlla di ci xalaat lu jariñ askan wi ci seen wàllu diine ak seen wàllu waaye na nekk dëkk boo xam ne it eh, ñi fi nekk di sàkku xam-xam duñ yam rek jàng rek mu jaar ci seeni nopp waaye yàlla da leen di baaxe ba def fi ak dégg ndax xam baax na waaye dégg nag dëgg dëgg dëgg mooy finalité xam mu ne wa maskanal irshaadi wa taalimi wa mawdixa taswibi wa tafhimi allahu akbar loolu lépp yàlla def na ko nee na bu mu nekk dëkk boo xam ne itam xam-xam bañ fay tasaare ak ak orienté ñi bu mu ba ku bokkul ca daara ja mënoo dem ca daara ja rek doo ca amub cër déedéet na am ñeneen ñoo xam ne ñu féete ñu mënta dem ca daara ja fa sëriñ daara ya féete ña nekk ca daara ja ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy jubbanti nit ñi ci moyen yëpp yoo xam yu ñu war a mën a jaar ba jubbanti ga àgg ci ñoom ba tabaarakallaahu ak si na léegi tey ngeen ko tey fa tabaarakallaahu jàngalekat yu baree bari ci ngeen si Abdourahman Abdul Xuddoos li mu ci def ak ci borom xam-xam yu bari ci dëkk bi jàngale li ngay jàngale mu nekk ci ay cassette ki demut ci daara ji sax man ciy jariñu def ay audio yoo xam ne da nga ciy leeral nit ñi sa mbirum diine ci fànn yépp gis ngeen suñ maamoor xam sa diine li mu ciy def ci wolof nga xam ne ñuy demut ci daara sax te dégg wala boo boo yoree kaset yi fa tabaarakallaahu lépp loo réere si wàllu diine wala si wàllu aqida wala sa wàllu suluk da ko ca fekk te loolu lépp borom moo ko fàgg woon muy ku bëgg a gindi ku ku nekk rek lu la gindi ak ñu la gindi koo wëlbatiku na ko gis loola doon ñaan waaye wa maswa tasfiib bi ah gis ngeen ko waxtu woo xam ne nag dëkk bi nag terapaas ak déviation am na par rapport ak li borom bëggën ak ñi fi nekk na am ñu taxaw nag corriger loola li xew barki dem bu ca la taxawaay suñ mun taxaa ci dëkk bi ca marché baag corniche yaag yooyu yëpp taxawaay si Abdul Ahad ci dëkk bi ak ci ca la ko jiitu woon ca tereem ya ànd ko ak njaboot goog seexal xadim gi fi desañ jëpp ñu xaatim ko indi ñu saytu loola loolu lépp sëñ bee ko ñaanan sëñ bee ko ñaanan kat kon gàttandu liggéeyub sëñ boobu waa maw di at taswiib bi taswiib ku dérape wala nga jàdd wala nga def lu méngoowut ak dëkk bi nañ la delloo siwaat jubbantiwaat la tegaat ak yoon wa tëf xii mi ah, waaye tas fiib nag dafa day ànd ak tëf xii mooy nañ jaar ci xel xamal la ne lii lor la tax lor la lor la bëgg wallaahi bëgg laa lor bëgg laa dimbalee tax ñu wax la ko ndax sa ndimbal ak sa barke ci li ngay fàggu mooy tënku ci ndigalul sëriñ bi rek ak bëggub sëriñ bi kon nag lii ñuy def muy masiir yi nur na lu sévère lool waaye bul jàpp ni mukk dañ laa bëgg a xañ teraanga wala ñu ñu def ségrégation ci diggante kenn ak kenn déedéet dañ laa dimbale rek te xam ne sa ndimbal mooy tënk ndigalul sëriñ bi ak bëggu sëriñ bi waaye du xajamal nag liggéeyub sëriñ bi kon taswiib bi dafa ànd ak ànd ak tafhiim wa maw di at taswiib bi wa tafhiim li ñuy jubanti it nañ fexe nag ba ñu comprendre fañ leen jëme ba seen xol nangu ko seen xel ko loolu daf ko ñaar loolu nag moo tax mu faggute école daaraam jëre jooju tey nga xam ne mooy waxtaan wi muy madrasatul xadimiya nga xam ne eh, lépp nga ca bil Mustapha lii banal xudus madrasatan biha yazulul ada wal jahlu wal allah mu jëfandikoo nag li góor yàlla yi jëfandikoo góor yàlla yi àgg ca fam àggan nag muy lu sëriñ seexu naa muy fi'lu maadi boo xam ne siixatu du'a la loolu ci góor yàlla buñ koy jëfandikoo mooy li ñuy ñaan yàlla dañuy am yaqiin ci ne bu seen kàddu àggee rek sunu borom dana leen ko may ndax la ko laltaay ci yéen ju sell ak bëgg a liggéeyal diine ak sàkku ngërëmal yàlla loola dañ cay am conviction ne am nañ ca loo xam ne boo ko gànnaay yow boo tàlla lay ñaan yàlla ak seen tolluwaay booy daaneel yàlla nangu góor yàlla yi boo maanaa si si maanaam bu ñuy ñaan duñ jëfandikoo feelul amri bil mustafa lii ba naas du maadi la waaye duaa la day mel ni lu lu sotti woon ba noppi la maa ngi ñaan yow yàlla nga may ma ci daraja kii may liggéeyal muy Moustapha sallallahu alayhi wa sallam daara muy école boo xam ne bi a yazulul aza wal jahlu wal kamal allahu akbar na ñu may daara joo xam ne bu noppee program ba programme ba ñuy jàngale ci biir daara ja lépp lu mu fekk ci pénc mi ak ci diine ji ci yii dana ko fi jële ba ca jëkk mooy al aza al mooy yàqu-yàqu boo xam ne bu am ci pas-pas muy pas-pas bu tërëm bu tilim wala bu lëddëm boo xam ne lu ca bokkut daf caa jaxasoo muy aqiida boo xam ne tey bu ànd ak shirk wala loo xam ne tey lu ko xajamal ëmbaale na ko waaye ëmbaale na it mooy fasaadul axlaax mooy jikko yu yàqu mooy jikko yoo xam ne yu yàqu te xam ngeen ne jikko moo tax yoon suñu borom yebal yonent bi innama bo islu tabi makarim axlaaq mooy li ñuy tuddee al asma al axlaaqiya loolu lépp ci azar ba ca nag wal muy ignorer réere lépp loo xam ne tey bis man naa dem ba agsi nga soxla ko moo xam muy lu aju ci wàllu diine wala lu aju ci luy defar sa pénc réere lépp loo xam ne bis man naa dem ba nga soxla ko te boo ko fekkut ci sa bopp faw nga sol taw daal wuti ko te boo ko wuti am wala mën nga ko am sëriñ Tuubaa ñaan école boo xam ne dana fi far loolu mboolem ndaw ñi toll ci jàng lépp lu seen luñ war a soxlaw seen diini duñ ko jëggaani duñ ko wuti fenn lépp lu aju ci luy defar seen pénc noonu muy li waaye beneen bi ci des nag mooy bi ñuy dund léegi kamadu ah xam ngeen soppiku jamono tax na ñi réew mi ñor ndonol nag ñi fi bàyyi ñor leen lu koy sàmm ñor leen kenn ku ne ci stress ngay dund situation réew mi ngay dem ba daanaka booy lekk sax boo ko xalaatee doo mën a lekk sax ba suur da ngay lekk du saf dara booy nelaw sax say nelaw du doy parce que lu wane lu nekk waneeku na lu fi nekk commencé di ko xeex mu am ay défi te loolu ay défi ko waral ay taxaddiyaat daaxiliya ak taxaddiyaat alxaarijiya muy défi interne ak defi externe mu ruur moo xam ne ci biir ci biir bàmba ji ci boppam ak ci biir diine ji ci la bàyyi ko muy li koy ruur ak ñi koy ruur ci biir la nekk ak moo xam ne nag ña koy ruur ci bitti la ñu nekk bu dee ci taxaddiyaatul daaxiliya rek ci nun li ñu ci ko mooy baatu ndigal ci boppam xoolal ndigal eh, boo jëlee ñaar fukki at képp sax ci gannaaw foo tuddee baatu ndigal foo ko mën a tuddee ci biir Sénégal xel yépp ci njabootu Seexal Xadiim lañuy dem ndigal moom dafa lëkkaloo akuk taalibe akuk murit buñ ne ndigal rek ñu ne taalibe murit léegi nag la yaatoo yaatoo yaatu ba tabaar fa kàll tey ku ne nag sax yaatoo yaatu ba tabaar kàll ku nekk di ci barkeel waaye bu jëkkaa buñ ne ndigal moom xel du dem fenn kur ci njabootu si fu masaa jóge itam la sëñ bi waxee rek su moom ci saalu amri yi ay suwara at saadixal murid seexal xadim arbaatun la wax nazamtu a xaw faxtira bu ci jëkk mooy asidqu ah, fi mahabbati cheikh sa sëriñ da koy bëgg te bëgg nag wax ak naa ko wax ak bëgg ci sayxul murabbi sa diggante diine mooy lu mu bëgg nga bëgg le ko lu mu bëgg lu mu bañ nga bañ le ko in kaana ubbuka saadiqun la ataatani innal muhibba liman yuhibbu mutia bu dee ci aada nag mën ngaa bëgg sa soxna mën ngaa bëgg sa doom mën ngaa bëgg sa baay mën bëgg sa leneen bu ngeen bokk ak bëgg waaye bu dee ci diine nag moom ki nga bëgg lu mu bëgg da nga ko koy bëggale lu mu bañ nga bañ le ko su moom tisaalu am bi i lu mu la digal nga def ko ay su waral loolu moo nekk ndigal di fondé woon yoonu mul léegi nag gis ngeen ko léegi tey xalifa bi te seeral na ci sëñ bi toll itiraat bul opposé bul gaaral sëñ bi bu defee woon néeg entourage ba ko wër di xam naa ñoo wax nii xam naa boo demee lii sax du waxi sëñ bi ndangam naa yépp sëñ bi da koo xam ne bul gaaral ca ndigal lam joxe bul ca def benn commentaire bul ko def ca suuf bul ko def ca kaw adamul itiraat ci baatin ak ci zahir léegi nag tey autorité suprême bi gën a rëy day wax fa tabaarakallaahu commentaire yi kenn ku nekk nangam nangam nangam wala sax ay am ñu am ñu osé sax maanaam toftal ci ay wax kenn mës koo ñeme kenn mës koo ñeme lépp loo xam ne lu ki fi nekkal Sëriñ tubaa wala ki fi nekkal genn ci kër yi nga xam ne tey mooy kër yi Sëriñ Tuubaa yi ka yàlla teg lu masaa yëkkati ci digal même ku ku ci àndut sax doo ko ñemee biral say wax doo ko ñemee biral sa comportement waaw waxuma naag di ko manifester isma boo xam ne tey eh, lu baree bari lu yàqu lu baree bari am na beneen bi ci tey ah, mooy tey te la ko waral mooy ñàkk tënku ca njàngaleem sëriñ ba ba ca nax jo xalaayal tariqatu adabi rahmatu saxiir kal abbi wal ummi wa tawxiir bi yoon wi nee na woon mooy rakk topp mag doom topp bàyyi ñi tolloo di ay naw la respectante joxante ay cër mooy ku yàlla jiital ku nekk ci kër gu mën a doon doom yaak rakk ya ñëpp ànd ak moom di déglu ndigalam di moytu ak tereem suturaale ko loola waaye moom it mu yërëm leen di leen taxawu ya ca seen baay génn àdduna tey muy baay bu ndaw mu wuutu leen féete leen fa leen seen baay war a féete bu doon dund bu dee mag la it du nekk ay rakkam waaye mooy xalifa bu moo def noona waaye ñoom it ñu di ko xoole seen way jur noonu moo moo mooy mooy li li sosan bàmba ji ëpp sa mag wala sa baay bu ndaw barke du tax nga wan ko ko da ngay jël lan ko ëppalee def ko jumtukaay pour liggéey ak ormal yëkkati ko ba ñëpp gis ñëpp naw loolu moo doonoon li sosoon bàmba ji moo koy doon dundal waaye loolu lépp tey gis nañu ay eh, taxaddiyaat yoo xam ne ñu ngi ko kii yoo xam ne tey moo moo jur këmat boobu sëñ bi doon wax ah mu ànd ak ne taxadiyaatul xaarija muy nooni lislaam ak nooni tasawuf yi nga xam ne tey ñoom it réussir nañu ila haddin ma ci gemb ñëw ci biir kër gi sett fi ay nit réussir ba dugg am accès ci biir kër gi sett fi ay nit yóbbu leen wii de la nekkat ñoom lépp def laneen lu opposé ak li nga xam ne moo nekkat ñoom dellu ñu dellu siwaat nekk ñoo xam ne tey dañuy xeex li nga xam ne moo nekk ndono li ba noppi nekk ci biir nag mënoo leen a génne yooyu yëpp nekk di ay taxaddiyaat yoo xam ne tey li ko waral mooy widd mooy widd widd widd ci baree bari mooy widd rek widd widd waaw dama dem ba koo xam ne am na ci ñoo xam ne cosaan la mooy mécontentement ñàkk am ku la taxawu ñàkk am ku la kii rek nga lu jóg fëkk la waaye ku nekk ci ay loxo dëgg dëgg ñu téye ko kenn du du am ci moom aw yoon waree loolu lépp nag sëñ bi madrasa boobu nag boo gisee mu bëgg koo delloo siwaat te buñ seetee Cheikh Mouhamadoul Mountakha xoolal xoolal xoolal xoolal eh, ni mu déggee sëriñ bi ci boppam bi muy delloo si école bi li mu wax xam na ne xam-xam mooy cosaan li mu ne kon sëriñ bi ansaar parce que ki muy liggéeyal bi ko yàlla yónnee da ko wala si ayyadaka bi nasri yii waaye wa bil muminina danaa la jàppale bu baax a baax man yàlla waaye duma ci yem danaa la boole ak ñoo xam ne ñu partagé ak yow yéene ak yëg-yëg pour ñu jàppale la moo tax boo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne aboubacar siddiq ne omar ibn al xataab usmaan ibn ali ibn abi talib saad ibn abi waqaas Usmaan ibnu Awf Tal'ata ibnu Ubaydullah Subayr ibnu al-Awaam ab et cetera jeex waaye boo tuddee Seexal Xadiim itam tudd góor yàlla yi mu ànd nañ moom sëriñ Adama Cheikh Ibrahima Fall sëñ Masamba Diop Sam Cheikh Arab Fati sëñ Daam Abdourahmane sëñ Daaro Assane Ndiaye sëñ sëñ sëñ si ayadaka bi nasri wa bi moom bi nii nag wax ne mënta ñàkk koo mën a doon loo wóolu wóolu sa pas-pas ak sa ak sa xam-xam ak sa dogu bul jàpp ne man ngaa dem yow képp rek te àndoo ak ñu la jàppale tariquhum asratan jaat lawaasimu la budda min li arbaabil iradati wa rufqatun ca la bokk wa hiya ixwa muy ñu la accompagner ci biir liggéey loolu moom liggéey liggéey bi ba mu taxaw kon bu ñëwee nag ñu war koo taxawal saytu ko taxawal école boobu sëñ bi waxam ne mooy école bi nga xam ne yowul azar wal jaxlu ak jafe-jafe yi ñuy dund yépp école boobu moo koy dindi kon bu Seex Muhammadul Muntaqa delluwaatee ci ñooñu ànd nag Seexul Xadiim ne kenn ku ci nekk kat alxuraan waxam na ne dëgg la famille yëpp donte famille diine lañ sax ña ca aju ñépp ba jàng jotee ñu gàddaay ñoom ñépp dem sàkku ji xam-xam bañ noppee ñu dellu si wan gannaaw lépp samp ay daara di jàngale déedéet loolu sàkkuñu ko ci ñëpp waaye falawla falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifa li yatafaqqahu fii diini wa liyunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yaxsaruun moo doy sëkk waaye nag buñ ko bàyyee ñoom ñëpp rek àdduna tukki muy kër gu nekk wala famille bu nekk na ca ñoo xam ne ñoom nañ bàyyi lépp nag jël seen préoccupation muy sàkku ji xam-xam fuñ ko mën a ame buñ ko amee ba noppi nañ dellu siwaat nag ci seen kër bàyyi wuutu ña demutoon di toog jàngale ak di nit ñi loolu yi nag moom la Cheikh Mouhamadou Mountakha def kër yëpp ci ñi ànd nag Cheikh Khadim mu ne kër gu ne nañ fa tànn ñaar jox ko mu dugal leen ci madrasatul xadim nga xam ne madrasatul xadim yi euh, xam ngeen ko dafa dellu siwaan madrasatul muhammadiya seexal xadim bi muy ñëw madrasatul muhammadiya mooy ban wala si baasa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatin wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab wal hikma ñetti programme la amal alquran a ko wax yatlu alayhim ayat jibril ñëwee wàcce ayatul quran balaa am jàmm moom yonent bi dajale sa tey ñu jàng ko mokkal ko dënn dem bindi ko muy ñëppeytoo alquran def ko ña koy yóbbaale seen kii def ko mooy njàngale ma alquran ma waaye wayu zakkihim ah, da ko boole tarbiya fexe ba ñuy dund alquran nag bu doon lu ñuy mem tari waaye dañuy fexe bay dund alxuraan ci seen diine ak seen comportement mooy da leen di ci seen i jikko ak seen comportement lépp lu jàkkoonte ak njàngalem alxuraan mu dind ko ci moom lépp lu njàngalem alxuraan digle te nekk ñoom mu def ko ci mooy wayu zekki im waaye wayu allimul kitaaba ikk mooy daaree xam-xam ja alxuraan dafa lëm lépp ak moo salaatu atu zakaata la wax andiwul rakka ya andiwul waxtu ya di wut la aju ca la ñuy biral ak la ñuy yalu koor gay lu mel noonu la ci wax saka ci loolu waaye yonent bi la ko anzalnaa ilayka zikra zikra litubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim kon nag xam-xam ba wayu aalimul kitaab wal hikmata loolu lépp yonent bi jàngale ci hadiis kon muy daara xam-xam ja kon ñetti daara yooyu la fi fekkan Seexul Xadiim nag bi mu ñëwee ñaari daara yi la fi fekk daara yuy jàngale alquran yuy jàng alquran ay kaang di mokkal di tari di bindi kaamil di def lu ne ak daaree xam-xam waaye wayu zëkk yi muy daaree tarbiya nag moo fi andi dañ ko caa dindi woon moom la dellu si waat te nag mooy mbir ma lu coow li bari bari bari mooy mbir mi innama dan bi ma makaarimal axlaaq jikko yi la aqida bi muy bi baax na lool gëm ne yàlla amul benn buur bu dul moom nangul ko lool waaye nag bu andut jikko yàlla nee na am tawhid ba nekku araayta lati yukasim bidini fa salika si yadawul yatim wala yadu ala taamil miskin boo wéetalee yàlla bu baax a baax a baax yëmadoo ko ak kenn waaye fa lam la sant ci jaami yàlla yi néew doole ñu jirim yi ak bàyyi ak ñi ñàkk te nga man leen a dimbale dimbaloo ko yàlla nee na sa taw it boobee sa gëm googee ku weddi ku ma weddi la yàgg ku ma weddi yéen a bokk àtte boo dee julli it ba dàq julli ñëpp itam te julli gi empêché wu wax lu bon ak def ak yéene ko ak naay soxor julli gi du jaar sa diggante ak sawara fa waylun lil musallina allazina hum an salatihim saahuuna allazina hum yuraauna wa yamnauna al mauna kon nag jikko dafa nekk loo xam ne tey muy comportement muy taskiya boobu wa yuzakkihim buñ ko ci dindee rek daanaka dara desut moo tax Seex Xadim delloosiwaat ko loolu nag moo tax muy école boobu tey nga xam ne moom la Seex Muhammadul Murtada euh, delloosi ci kaw fexe ba tabaarakallahu tey ñu tey bu ñu demee ba seenub liggéey àgg ñu dellu foofa tey doo demati ci genn kër ci kër ñi nga xam ne ñoo ànd nag ak sëriñ bi di liggéeyal yàlla démb ak bër démb te doo fekk daara ju jàngale alquran ak daara ju fekk jàngale xam-xam te kenn ku bokk ca kër ga ci boppam di ko def ndax nee naa leen wax ko ci benn kër mag ca jamono yooyu lu toll ci mi at bokk ci kër yu mag yi ànd ak sëriñ bi ma laajte ndax daara am na fi ñu ne ah daara di amagu fi ah! kon ku fi bëgg a jàng dañ koy génne dëkk bi yóbbu ko faneen taalib bu aju ci kër gi bu bëggee jàng lu faneen la koy yóbbu ma ne ah ku jëggaani am am yar akum njàng day da jëggaani jikko kon day bépp seen taalib bu aju ci biir kër gi bu nekk bu ngeen demee ba dégg ne génn na kër gi dem feneen kat bu leen ko yedd bu leen yedd baayam yedd leen seen bopp ndax nag bu ne ab yar rek dana jëkkaani jikko dana jëkkaati met melokaan man naa demee sam tax ba jóge fi xeet fi mu bokkan ak li mu bokkan ndax lam fa war a na am ak fañ ko war na féete amuñu ko boobaa lu baree bari ci xale yi génn loolu moo koy waral loolu lu ci baree bari xam nañu ko moo tax nag Cheikh Mouhamadoul Mountakha gasandu loolu ci bihaa yasuurul asa wal jahl wal kamadu ji mu fas yéene képp ku ànd ak sëriñ bi ku nekk tey sa njaboot géemu jël bu noppee ci yow bañ delloo la moom loola moom day jeex takk fu nekk rek maanaa daaray xam-xam dana fa nekk daaray alquran dana fa nekk ba du ñu génn jéggaanu ji lenn boole ko nag yaral seen bopp di yaral seen bopp seenu njaboot ca mën aj ak yoon waleen sëñ Touba jaarale woon ndax Seexal Xadim kat bu mu noppee ci ñoom kenn ku nekk da laa jox lettre de mission bu ngeen demee ci rasaay yi ni ko doxtaan ak suñ Mamor ñoom ñii suñ Mamor am di ñoom ci suñ daara ji eh, sëriñ bi amul kenn kum joxul lettre mission da cee am yu ñu gis ak yu ñu gisul waaye comme noppuwaa ci yow kenn ku nekk bind na lettre de mission jox la fa mu bëgg nga jaar fa jaarale fa sa njaboot bind na ko ci yow léegi nag loola lañu bëgg nag bu noppee kenn ku ci nekk nag foofee sëriñ tubaa joxañan ne la yow nga jaar fa jaarale sa sa njaboot nga am nag kenn ku bokk sa njaboot koo xam mooy taxawee taxawaay boobu de léegi nag euh, xam ngeen ne boobu tey Cheikh al Khadim Cheikh Abdoul Ahad Mbacke bi mu toogee dafa dem ci nijaayam sëriñ am satu jaxate ne ko ah, yéen yi nga xam ne kat yéen nekkat ak sëriñ bi taxawoon ak moom man kat gannaaw bu ma yàlla tey fii ci bopp yoon bi ma wóotu fi sama mag yu baax yi te naal wu rëy bi fi Seexul Xadiim bàyyi woon Cheikh Mahamadul Moustapha ak Cheikh Mahamadul Fadil def ko na ko borom bëggee woon te bëgg nag bala ma koy sosal ma xam ba la neen ci aw naal bu fi bàyyee aw naal bala ma ko sosal ma dal ci naal woowu yii ni ko sama mag yu baax yi defoon su ko ma seet nag lu ma koy naalal si ab si ab nag jumaa ja daa gën a rëy waaye jataay ba mu santaane jumaa ja daara la ca boole woon moom ca la waxee daara ja te daa wax na nekk daara joo xam ne bu noppee na bëgg mu mel na mooy kenn duutu gàddaay waxul sax ci biir yoonam wii ci njabootu yoonam wii waaye ci biir njabootu islaam di génn réew mi di sàkku ci xam-xam fenn ndax lu su war a sàkku ci bitti rek danañ ko jàng ak di ko jàngale ci biir daara joojee daan ne fagguloon na ko ay téere yoo xam ne bari waaye ga ëpp na ba ñetti néeg gi ràng yañ ko dugal ñaar yee sëñ Balla Faari jënge ko takk benn ba sëriñ Touré Euh, ndigal la dafa sorewut ak dig bi ba bi mu jotee téere yi tesaaroo ci biir njaboot ne ko demal ca mbàkki bu sa yaxalan na ko boo demee ci waa këram suñ ñi ña ko fa wuutu danga nga fekk bu ñàkk yax ba ñu jox la ko ca la Cheikh Ahad demee ci sëñ Baakar ak sëñ Malaay ñoom ñu jox ko loolu muy dénkaane boobu nga xam ne moom ngeen gis sëñ mbàkki bu sa bind ko ne xawma wenn naal wasuñ fi bàyyi lu dul yett yëpp mu yéene gub yéene woon a dem makk ak jumaa ji ak daara jii daan ne fàggulal na ko daal di wax ni ko seen sët waxee ay téere yoo xam ne amut fenn foo daan dem ci biir këri diine yi fekk fa téere yu toll noonu mel noonu moo tax si Abdou Ahad nag daal di barkee loola ne ñetti téeméeri million yi dëkk am gannaaw bu mu wutoo Serigne Touba mu ne barkeelu ci la Serigne tubaa defan tabax ci bibliothèque bi muy kàggu gi muy lan muy inspiré wu ca néegi ràng yooyu mu takkan téere yooyu mu jëlin mu woo sëñ ko mu génn dem fàggu ji ay téere lépp rek topp sunna sëñ bi sëñ bi daa wut ay téere barab bu ñuy def ay téere digle ñu tabax kii bi moo tax loola la def ba noppi doog a taxawal eh, daara ji taxawal ko gis ngeen ko ba yàlla dogal bi liggéey bi daal di tàmbali mu wàcc ab liggéey sëñ Abdou Khadir yàgg fi sëñ Saaliwu ñëw am yéene yeesalaat ko ñun ñii woo nañu ay yoon yoon ci kër sëñ Moustapha Saaliwu di laaj kenn ku nekk ñuy proposé ban programme la jàpp moo xam ne mooy dëppoo ak ñetti ñetti baati sëriñ bii mooy istija moo mën a tal moo mën a wuyu bihaa yazulul asa wal jahl wal def nañ ko fa ay yoon yoon ay weeri weer kenn ku nekk di bind eh, ba yàgg la ca xew xew ca teewut ñu continuer sëñ bi joxe ndigal euh, sëñ Saaliw ñu tàmbali woon sëñ Abdou ñoom ak sëñ Jiili ñoom di fay jàng jàngale bi sëñ Cheikh Ahmat bi fi bi nga xamee ne sëñ Saaliw wàcc na liggéey et ba sëñ Cheikh Sidi Muxtaar ñëw itam joxaat ndigal sëñ Muntaxa bañ tàmbali ca waaye dafa fekk na mbirum sëriñ bi ci boppam sëriñ bi dafa am e, asanda boppam boo xam ne tey lu ci nekk daf ko programme mel mu nekk kenn muy sottee ci ay loxoom ku nekk mën na caa mën na caa yéene waaye lu sa yéene rëy rëy ak sag bëgg-bëgg bu fekkee ne eh, ki yàlla ki mu programme moom ci sëriñ bi ci tàndaam mu mbir ma di àggee ci moom rek kooku moom la loola di xaar moo tax jege si moo amatul Muntaxa jege siñ Seex Ahmadu Lay bi mu ñëwee eh, yeesalaat na liggéey moom préoccupation numéro un liñ def muy awlawiyaam mooy jumaa ji jumaa yi Masaalikul Jinaan ak ñaari soror yi ak li ñu defaraat ci jumaa ji waaye ji nga moo Maodo Mountakha bi mu ñëwee mu mel ni kon Cheikh Maodo Mountakha nag ah li mu ñëwee li mu wax te mooy waxtaan wi mooy baytul xasida mooy ba mu laal suuf mooy buñ ko ne jàkk rek yëkkati ko bu mu laal suuf baatu bu mu laal suuf nag dafa am dafa nekk cosaan ci wàllu diine dañ koo mooñaale diine ji boppam sunu borom subhaanahu xamal jullit bi ne ko sunu borom subhaanahu ak lépp luñ simbal sunu borom subhaanahu muy mbirum yàlla ak la ca aju lépp moom lim baaxoo mooy kawe rek yëkkati ko jëm kaw waaye du yooru mukk jëm suuf wa jaala kalimata allasina kafaroo sufla waaye wa kalimatullahi ayal ulya sunu borom subhaanahu ak lépp lu aju ci moom ak lépp luñ ko sumbal ak lu mu ko naanal ca kaw rek waaye du lu du lu war a yooru jëm suuf loolu nag moo tax eh, góor yàlla yëpp Seexul Xadim nee na seen slogan góor yàlla yépp seen slogan mooy loolu moo tax sunu borom subhanahu wax jullit yi wala taxaafu wala tahzanu wa antumul a'lawna ah waaye in kuntum nag moom mii nii la tiit bu leen jàq ci lenn luy luy jaar seen diggante ak ngeen atteindre seen objectif muy li leen tax a jóg jëkku seeni noonu dominer leen taxawal diine bu leen ci tiit ndax wa antumul law na yéen suñu borom da leen a teral ba teg leen ca kaw bu leen yaafus nag bay jële seen bopp foofa di wàcc di yooruwaat jëm suuf waxuma laaj di laal suuf waaye nag ci kaw ngeen gëm ko wa antumul a'lawna waaye in kuntum mu'minina waru leen a laal suuf waaye nag ci kaw ngeen nangu ne gëm ne waru leen a laal suuf moo tax Seexal Xadim bi muy ñëw dina jàngal góor yàlla yi e cër biñ am ci yàlla ak li leen ko may mooy ba mu laal suuf jooju rek kullu biha abadan mais ñun ñëpp moom dañoo dogu woon ci ne du ñu deltu gannaaw mukk luñ ne jag itam ba yëkkati ko jom dañ koy wéyee rek ba bis bu nekk day gën di yéeg jëm ci kaw waaye du taxaw du yooru waxumaa di laal kulul la oo immatun yarqa biha abadan ila asisin moisin fi futu addi moo tax nag moo mu ñëw nag moom nekkoon yow mi ànd ak moom wal himma tarfa kullaha lil xaqi wakkil bi azin laa tamit leen xalqi kon nag yow itam projet boo yëkkati wala boo amati aw naal na nga ko ne jàkk ci loxo yi yitti ak jom aku fit aku njàmbaar te bu laal suuf wal imma tarfa na jëm kaw rek kullaha lil aq wa kul bi azin laa tamil lil xalqi wal tarfaxu imamakum li layli ma naalal kiraamu min ridaai zi zama ah bu ngeen bëggee fa gaa yu baax ya àggan lu ngeen na yëkkati seen seen seen yitte ak seen jom lu ngeen ne jàkk rek yëkkati ko lu ngeen ko yóbbu ba mu àgg fa mu war a àgg waaye bu mu laal suuf bu mu yooru di jëm suuf waxuma wal tarfaoo yi ma ko ca kaw rek li may li ma naalal kiraamu min rida issi zaman mu daal di wax ci jumlatul aadaaba muy juróom ya wa jumlatul aadaabi inda al qawmi inxasarat fii xamsatin yaa qawmi nee góor yàlla bi nga xam ne ñoo ñoom moo taxan ñu atteindre seeni objectif yépp am lañ bëgg ci luy defar seen diine ak luy defar seen penc juróom la xifzun li urmatin xulwi himmatin wa usni xidmatin wa shukru ni ah nee na juróom yooyee bokk na ca xulwi himmatin mooy fexe ba loo yëkkati rek du laal mu ne kon fa ahli himmataka ah yow mi bëgg nag yow mi bëgg nag fu gaaya gaay yu baax ya fu gaay yu baax ya teere ëllëg nga teere lu ñu am nga am cëb cër nga séddu ab cër bu la doy sëkk fa aali himmataka fii umur dunya wa oxra bil ujara fala seexal xadim na nga kaweel sa itte ba loo ne jàkk yëkkati ko ba mu laal suuf moo xam luy yéwénal sa penc la fii umur dunya wa oxra ak luy yéwénal sa këru alaaxira lépp luy defar sa pénc ak luy defar sa alaxira ci procès wala naal boo yëkkati bu nekk ba mu laal suuf la jëm kaw rek fa ali immataka wala tualliqha bi shay'in bi zaman min a naqaais yi ah, mu indi nag mu la min a naqaais yi mooy bu mu laal suuf te nag mu ne duut baaraam ca loola wala tualliqha bi shay'in fi zaman min a naqaais yi ah, bu mu laal suuf bul ko aj ci loo xam ne luy deltu gannaaw la aj ko loo xam ne luy jëm kanam la di yokku ah. kon firi na na bu mu laal suuf te mi ne ndaqaa is muy waxtu wu nekk li nga sumb ak yoon wi nga aw nay yokk di avancer di développer mais bu mu wàññeeku muy saw doxin ci yoon yoon wi saw doxin ci sëmb yi saw doxin ci taxawaay bi nay yokku waaye bu mu wàññeeku muy taxawaay bi nga ci am bis benn bu nekk nay yokk waaye ba mu wàññiku la nga yëkkati lu nekk day gën a jëm kaw waaye ba mu suufee waxuma laa di laal suuf wala tualliqa bi shay'in fi zaman min a naqaisi dara luy tax muy wàññeeku sa kattan sa effort sa njàmbaar say jëf lu koy wàññi lu koy wàññi sori ko bul ko aj mukk ci lu koy luy tax mu wàññi ko aj ko ci loo xam ne toujours rek day jëm kaw bu mu laal suuf kon mu mel ni Eh, kooku lu fondamental la kon ci diini alxuraan ak sunna ak njàngaleem sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi ak si aar muy sologa góor yàlla yépp mooy booguñu ñu mun muntaxaa indil wàccal lu ko ba mu diggul mooy bu mu laal suuf yàlla nag dimbale nanu ba sembi bi mu ko yëkkatee laal suuf ndax moom bu mu laal suuf joojee mu jiitu ba mu noppee boppam aw sasu boppam daan ne ku dem ma dem ku demut ma dem ku bay ma bay ku bayut ma ma bay te noonu la doxale amul benn préoccupation benn bëgg-bëgg benn yëg-yëg lu may fexe ba lii mu yëkkati moom du laal suuf ba ba muy àgg fam fa mu bëggal ba mu digle ko ah fa tabaarakallaahu taalibe yëpp itam njaboot Sëriñ Tuubaa yëpp ànd ci ak moom fexe ba ne bu mu laal suuf jooju daal nañ fexe ba matérialiser ko bu mu nekk rek lu romb ci suñu nopp laalut suuf ba keroog biñ ko inauguré kenn ku nekk loo ca defan rek daa gën a bis bu nekk dangay gën a laxasaay te tekaat ka laxasaay waaye nag ba mu demee ay kat ay jumtukaay la waaye liggéey bi nag dëgg dëgg nag ak si te moo gën a giis moo gën a metti liggéey bi nag tàmbali na xam ngeen ni tey ñee fa nekk tey te ay booloo yu jóge ci këri diine yi te ay tut tànk ñu dëkkal leen fa di leen jox ndékki di leen jox añ di leen jox reer boole kook sàkk ay jëmm yu ñuy fay ñu di leen li dañ ca war a fóotal seeni yére ñu di leen ko fóotal di leen sang ak di leen taxaw loola ma nga aj ke nekkin wa képp bokkut ak nag ña nga xam ne nag la tax ñu nekk fa nag muy njàng ma ñoo ko saytu waaw ak paj ma si si si si si si seexu naa dool na ma ci ak paj ma barabu fajukaay ba fa nekk ngeen ne gone fukki gone képp fuñ nekk waxuma téeméeri gone waxuma nag juddi gone ci benn barab ci ay conditions yu mel noonu faw du ñàkk ah, léeg-léeg euh, li baax li li li li baaxoo li doomu yaramu doomu aadama même mag sax baaxoo def fokk mu dee leen dal rawatina gone te kay ku ca bopp metti wala biir wala dara nga yëg ko tey <coughs> comprimé bañ lay jox wala siro wala pigri bañ lay jox moom itam prix la ak njëg la kon la aju ca paj ma ak dund ba ak entretien barab ba ñu nekk ak nañ leen di taxawoo ñoom ci seen di leen sang ak di leen fóotal seeni yére loolu lépp ak équipe koy def boo xam ne dañ leen di fay ndax ay boromi kër lañ yoo xam ne loolu mooy seenub liggéey plus nag la nga xam ne moo waral lin moom muy njàngale ma parce que ay ñu ñu tànn ñu gàddaayeen jàngi ba ñëw ñu tànn leen ci seen xam-xam ak seen seen seenu melakaan ñoom lañ ko jox kon ñu war a yor njàngale moomee loolu lépp di ay dépense kon ñu war a yeesalaat kon bu mu laal suuf jegoon kon loola lépp tey kenn ku nekk war a jomm war a jombale daaray Seexul Xaddim jooji ñu xëy na ah tey kat ña doon fóot kat wala ña doon taxaw taxawaay ba kat nee nañ am nañu nangami fan wala nangami weer yoo xam ne kat kenn fayu leen gisuñu dara wala xëy na ah léegi kat dong yee ña ngay wax naa njëlbeen gi lool dañ daan xëy añ bar suur reer ba suur ndékki ba suur waaye léegi taa rek dañuy këlamtikoo lañuy lekk ndax yëfee doyatu lool lépp kenn ku ci nekk xam ni ñu war a bàyyi xel ne loola war nañ koo jombale madrasa Seexul Xadim boobu tey kon loolu lépp tey bu mu laal suuf ja loolu nag aw yoon la boo xam ne kenn ku ne am na ca xalaat nun nag li nga xam ne moom lañ ci xalaat ba ci jëkk moo di xam nañ ne école bi ci boppam wax nañ leen ko léegi ci laltaay bi école bi ci biir projet Seexal Xadiim bi mu sëmbaale ci dëkk bi comme barab bi ñu nekk muy jumaa ji kon dëkk bi ak jumaa ji ak école bi ñoo bokk ab àtte kon ngir pérennité ak continuité ci liggéey bi mu bañ a laal suufu fa tabaarakallaahu la ci jiitu mooy mu nekk ci taata riayati alxilaafa al aama lil muridiya nga xam ne day yor atteb jumaa ji nga xam ne budget budget xilaafa général ci boppam bu fi mën a nekk ba ilaa yomi diini maanaa programme école ba ak ci dépense am dañ koy instruire ci biir kër bi comme ni jumaa ji ak dëkk waaye nag loola ngir mu mën a nekk loo xam ne comme àdduna day dox te day soppeeku ñi fi nekk di rakki Seex Muhammadul Muntaqa te seen way jur yu baax ya àndan ak ña leen fa jiitu woon ci lépp luñ simb luy sëriñ Touba muy mag ñooñu moom kenn amut looy ragal wala looy tiit ci ñoom ci ne ku fi nekk itam ci sunu waaye na comme adduna day dox yeneen génération di ñëw te lii moom ay junni at la fi war a nekk kon dafay am loo xam ne nag faw Cheikh Mouhamadou Mountakha junjën na ko daara ji bi ko daf ko wutalan ay naw mooy université ya nekk Basra ak Kuufa ca Iraq jaamiatul Azhar ca Égypte jaamiatul Zeytun ak Xayrawaan ca Tunis xarawiin ca Maroc ak yeneen yi nekk ci réew yi adduna bi yëpp loolu la wax ne ñooy ay nawleem jaami ay yooyu nag ay aw xaab ñoo ko téye ay aw xaab ñoo ko téye aw xaab mooy loo xam ne dafay nekk ba faw moo tax nag ñun li nga xam ne danañu ko proposé eh, moo di tey faw ñi nga xam ne tey ñoo saytu njàngale mi ak liggéey ba il faut ñu proposer ay awqaaf muy ay immeuble ay imaaraat yoo xam ne tey ci biir ndakaaru day mën a génne ay millions par weer ay ay ci biir ay société yoo xam ne tey ñoom itam société maanaam syndicat istismaar yi doon nga xam ne eh, société yi nga xam ne eh, pour investissement la ba noppi di doxal doxalin bi nga xam ne lislaam nangu na muy ay action ci ay société ak ay ci banque islamique yooyu mooy ay aw awxaaf def ko ay aw awxaaf yoo xam ne waxtu wu nekk dana générer ay fonds yoo xam ne tey eh, waxtu wu nekk dana mën a assurer garantir maanaam fonctionnement bi ba ilaa yow mi diini ndax wax fu moom du soppe lu fi nekk la ndax tey boo demee ci jaamiatu islaamiya boo demee ci masjidu nabawiya ak masjidul arab ci makkatal mukarama ak madit munawara la ko wër lépp ci ay kii ay aw xar buur yi dañ daan jël seen xaalis di ci def waaye dañoo mujj kenn ku ci nekk delluwaat ci islaam jël benn hôtel ne bii def naa ko waqf rek lu ci génnee nañ ma ko dugal ci masjidul arab ci ne boo demee màkkatal mu karam gis nga am na fu ñuy wax montar bi hôtel yooyu ko wër yëpp yu ci bare bari ay aw xaaf la yoo xam ne tey la ciy génne lépp mooy masjidul euh, euh, arabayni sharifayni boo demee madinatul munawwara boutique yooyu nga gis yëpp ñuy jaay or ak hôtel yooyu yi ci ëpp yëpp ay aw xaaf yoo xam ne ay prince ak i borom doole ñoo ko jënd la cay génne lépp ñoo yore la nga xam ne mooy personnelu euh, jumaa ja noddukat yaag ña yor njàngaleem ak ña yor lépp fonctionnement ba loola lépp tale kii muy loo xam ne ba iddaa yo muy dugg du deñ boo demee Turquie lu mel noonu moo fa am ay aw xaam ndakaaru eh, maa ngi ci doon gëstu ca fan yële am na fa ay eh, fondation yu mag yoo xam ne tey naar yi dañ leen daan dimbali may bañ a tudd aw tur am na fondation bu mag boo xam ne naar yi da ko daan dimbali at mu jot muy tabax at mu jot lu mat ay téeméeri jàkka at ay at mu jot nanga bi jàkka lay tabax lu gàtt-gàtt fanweeri jàkka wala fanweeri juma gas ay teen ay lu baree bari loo xam ne da koy def loo xam ne ay centaine de millions la ba yàgg naar yi ko doon dimbale ne ko bakkan waa waa la te buñ faatoo suñ doom yi fi nekk mën nañoo bañ a am yéene ak jubluwaay yu def lii seetal ci biir Ndakaaru foo xam ne mën naa génne xaalis ci ay ay yàlla dagoon nag kooka ba mu koy def loola ah, kay jëwriñam di def loola maag moom noo àndal ma di ko xelal ci loola waaye fi mu ne maanaam immeuble yañ tabax ci biir Ndakaaru weer wu dee ay centaine de millions lay jëndi centaine de millions laa wax ne moom lay jënd nga xaree su xalaatu dara lu koy jóge bitim réew boo ko te ay action muy loo xam ne tey kon ay action ci lu mel noonu kon gis naa ne ci biir fonctionnement bi fokk ñu boole ci loo xam ne te ay imaaraat yoo xam ne tey eh, lu mel noonu incha allah xam ne tey eh, muy eh, kii immobilier yoo xam ne beneen bi ci des mën naa nekk ay imaaraat waqf bi mën naa nekk ay action ci ay société mën naa nekk nag ay société ci banque waaye bi ci des nag te bu am solo mooy ñu taw iye njabootug sëriñ Tuba njabootug yoonu murid yëpp murid yëpp ne man maanaam sax mu fii sabilillahi ci ayatu zakka <clears throat> ñu xam ne ba ko alquran wax jihaad fi sabilillahi la woon borom xam-xam yu njëkk yi ak yu ci mujj yi wuutewuñu ci jamono yonent bi cër bi bu ñu ko yëkkatiwaat ñu daan génn di xeexal yàlla léegi tey borom xam-xam yu njëkk yi ak ñu mujj yëpp dëppoo nañ ci ne mës ñoo ñàkk dëppoo ci ne jihaad ji ëpp doole nag léegi mooy jihaad ci xam-xam ndax ñi noonu islaam yi xeex lislaam bëgg ko màgg ak ak ci jullit yi ci xam ci ci loolu lañ lañ lañ lañ koy jaaree ah dafa jëf dafa ah lañ koy jaaree kon nag il faut ñu am lu mel noonu saabu fii sabilillah ñu di ko dugal ci biitu asaka maanaam ñu xiirtal leen ñu xam ne fañ koy dugal dara gën caa rëy lu mel ni ki eh, liggéey bii di xam-xam beneen ba ca des mooy ñi nga xam ne tey ñoo fi tabaxan ay kii Tuubaa ci kanam ca la tali acca la waaye ñu marché bi ñooñu ñëpp itam kenn ku ci nekk bâtiment ba nga liggéeyal da koy fonctionné ñu wax la da nga continuer ba léegi ba mu laal suuf ja ba tey ba mu laal suuf tabaxat nga ko ba mu àgg laal suuf léegi fonctionnement yi ba mu laal suuf yaay seen pexe moo koy defee waaye pexe ma nag dara gënu ca jiitu ñëw ñu taxawal ay awqaaf yoo xam ne tey dañ koy tabax ay immeuble wala yoo xam ne tey dañ koy dajale xaalis tabax ko boobaa sax bu ñu rocee seen loxo itam duutu laal suuf ndax loolu day continuer di ko def waaye bu mujj bi nag xëy na moom ah sëñ bi sax du bëgg ku ko wax waaye nag nun noo war xam sunu bopp nag xam ne kat sëñ bi moom ma nga ca du laajte lenn waaye nag comme sëñ bi lu nekk dañ caa war a dañ caa ànd ak moom ba mu koy tabax dañ koo ànd ak moom kër diine yëpp dañ ko ànd ak moom taal bi ànd ak fa moom kon nag fonction maa boobu bu demee ne ba mu laal suuf fi mu ne nan topp ci moom ne ko ba mu laal suuf mën nañu bañ a sas kenn waaye nag képp ku fa sa doom nekk buñ la sa sutit bu weer dee loo ko mën a dugal doonte ñaar téeméer la wala ñetti téeméer dugal sa saako pepp andil boo amee sa saako sut andil boo amee sa saako ceeb andil loo mën a am andil sa kenn waaye nag ba mu laal suuf jën ak dàqoon Euh, dafay koy dàqonte nag nga dugal fa sa rek bàyyi buñ sa sut tamit jàpp nag ku fa dugal sa doom ku nekk te boo ko dugal fii ci école yi ñeenti junni ngay fay wala juróom benn junni par weer lu néew néew donte juróomi téeméer sax walla ak junni sax boo ko foree bu weer dee nga dugal ko fa loola baax na loola loola dana dimbale dund laal daga noonu kër yi itam kër yi nga xam ne tey mooy kër yi ànd ak seen xatim te kenn ku nekk sa njaboot nekk fa ñoom itam ñu ànd ak si mun taxaa ci bu laal suuf ji kenn ku nekk weer wu dee lu néew néew taalibe luñ mën a dajale ku am sa téeméer ku am sa ñaar téeméer ku am sa ñaar fukk ku am sa loo am andil donte sax kenn ku nekk rek ku am sa saako pepp andil ku am sa xaal andil ba ca ña nekk ca ñaay ba ku am sa soble andil ku am sa pataas andil ku am sa pomme de terre andil bu mu laal suuf lu waaye am rek te andi na na na andi mooy buñ ko bàyyi bu mu laal suuf mooy kenn ku nekk daal buñ bàyyi rek na sëñ bi ma ngay ci mooy lu ci waay am rek na ko ci dugal nañ fexe boo mu laal suuf dina continuer loolu laa jàpp ne buñ ko defee insha allahu du laal suuf mbaa ngi jégalu nag ndax jërëjëf saa bi dama dama dama dama rëcc ba xam naa ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf sëriñ Xadim bi am na solo lool leer na lool li nga mujj a wax rek daanaka mooy baytul xasiid maanaam fonctionnement bi ni muy continuer yaakaar naa Euh, proposition yi nga joxe yi nga mujj a joxe am na solo lool waaye li nga wax ci waqf ak istismar ak placé maanaam capital boo xam bi dañuy liggéey suñ ko tegee ci loxo ay boroomi xam-xam ñoo xam ne ñu dañoo spécialiste ci euh, waaw idaara ak ak ak ak iqtisaad ñu yor loola yaakaar naa dana dem ba sax yooyu nga wax duñ ko soxla dëgg la capital bu rëy bu fi amee boo xam ne bii day fonctionné mm-hmm. ñu e-, ñu investir mm-hmm. ñu investir xaalis boobu mm-hmm. muy dox ñu teg ko ci loxo yu yaakaar naa dem dana dem ba sax duñ soxla ñuy saw suwaan yooyu xaalis day dem ba xaalis bi sax dafay des ñu mën a doxal yeneen projet yoo xam ne ci loolu lay jógee yaakaar naa loolu mooy ni waqf bee ngi fi zakat a bi fi jaayantee ngi lu nekk ngi fi loolu bu dajee bañ am capital boo xam ni bi ay milliards la milliards yooyu bu continuer ñu teg ko ci loxo yu wóor yaakaar naa fonctionnement bi day continuer du taxaw te dana dem ba sax ba nga xam dana générer yeneen ay projets yoo xam ne yi ci biir fii lay génne xaalis bi dana dem ba doy bu ëpp loolu nag xam-xam la laaj ak organisation loolu loolu moo ci des ndax murid yi ñoom ñaar muy boo laajee ñu joxe boo wootee ñu wuy si la ca des nag mooy la ñuy indi nañ koy organiser ba man na dem fa mu jëm loolu moo ci des wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kon suba sëñ Mbàkke Abdourahman mooy waxtaan ci alwasiya wa ahkaamuha fil islam ñi nga xam ne itam dañoo bëgg euh, laaj ay laaj ci fatawa yi ñu ngi leen di jox numéro yi 77 678 57 66 77 07 29 20 77. 016 072 94 76 ñi ngi sant itam euh, taskatu xa euh, jumtukaay taskatu xabaar yi lu lu demee ni alxidma TV yi ak yeneen rajo yi ak yeneen ja tas euh, site yi fi nekk pour jàllale waxtaan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaa xayra dayfin ataa bil bishri